nee na comme ni ñu ko déggee ci vidéo bi en wolof nee ndaw yi ñoom ñëpp fi toll nii yàlla def na am nañ doole ñu mën fësal parti te kuñ ci jox ngànnaay di nga génn xeex nee na dañu war a génn ndaw yi dem doxi palais jël président Macky Sall génne ko ci mbedd ni di ko traîner comme ni ñu defoon président libéria libéria bu njëkk mooy Samuel Doe Mais également partisans ay nous préparer instant bu vous nous vous voulez, dañu Vous vous voulez, déclaration vous mel Vous Vous déclaration yi jural Sénégal ay voulez, yu parce que voulez, xoolee diggante mars deux mille vingt et er juin premier et 2 juin 2023, li ñu am ci ñu gaañu ñu ñàkk seen bakkan ci xew-xew yi ci appel yoo xam Ousmane Sonko moo def ëpp na tout et que soo xoolee néew bu nekk dañ koy rattaché ak jëmmu Ousmane Sonko parce que appel yooyu su amuloon manifestation du am appel yooyu su amuloon nit ñi duñu génn ci mbedd bi ba mu am ñu fii faatu par conséquent ñun dañuy estimer parce que dafa estimer que ne appel yooyu dañ ko war a topp xam naa ne nit ñi dinañ ne li tax boobu ba léegi defuñ ko li tax boobu ba léegi toppuñ ko wante dañ leen bëgg a xamal ne procureur moom moom mooy am opportunité possible mooy nit ki mën a def dara mais tant que neewul décision ne daf koy topp amul dara loo xam ne war nañ ko ci mën a bu yoon jeexalu ko procureur am na possibilité topp ko et que li ñuy topp ci conseil bi c'est depuis mars 2021 ay ñàkk nañ seen ay citoyen ordinaire yoo xam ne seen néew yi yàq seen place yàq seen bërëb yàq seen ay loolu moo tax ñu topp Ousmane Sonko li également mooy dafa am euh, ay kuréel kuréel yoo xam ne bëri nañ wante suñu jàmbaaru euh, police bi ak gendarmerie bi li ñu ci jot a gis mooy ñett ba ñeent mooy ñi ñuy wax euh, moteur combat ñun ci moom jaaroon na fi jàpp nañ leen daye mooy APT bi nga xam ne moom lañ njëkk a def te bi ko defee li gaañu ci ay doomu sénégalais mat na daanaka fukk ak juróom-benn mooy APT bi mu def. bi loolu amee également am nañ dossier boo xam ne force spéciale la force spéciale bu ñu génnee nit ñi sax commencé woon di ridiculiser bi naan affaire yi ne force spéciale la mais en gens se sont rendu compte que bi ñu ba jëmbi jamono xam nañ ne. niveau spécial bi loolu mooy continuer di am parce que après gis nañ dossier commando gis nañ après dossier cocktail molotov ak événement yi nga xam ne nii ñoom ñoo le premier et le te yooyu yëpp dañ ko jël di ko teg tey ci ndoddu Ousmane Sonko parce que boobu ba léegi koy wax moom wax na ko du benn yoon du ñaari yoon du ñetti yoon nee na ay ñooñu ñu ngi leen di jàpp pour appel à l'inspection li tax moom chaque jour mu wax ko ci dañoo wax ne tey mooy bés bi nga xam ne nii ci la yoon décidé jàpp ko pour appel à l' instruction et c' le cas. dañ koy topp également pour histoire euh, téléphone portable bi euh, liir naa déglu naa tamit ñu naan euh, Ousmane Sonko est ce que téléphone portable def lañ koy jàppee non Ousmane Sonko kenn jàppee ko téléphone portable. quand tu arraches volontairement un bien du code pénal donc quand on parle de vol les gens pourquoi il a été arrêté pour vol mais juste à mais également également également nous rappeler les euh, xëy na dama ko un tout petit peu en français mais nous rappelons-le, que les li ñu sont Ousmane les codes Je ne vous jotewul dara absolument rien à voir avec la première procédure où il a été condamné par contumace de mon bëgg mon l'air également ci bopp nit ñi débat il a été arrêté pour cause Ousmane Sonko ni d'appel. la parce que tu non le parquet du l'État l'autorité, avait la possibilité de le faire parce que la décision est devenue définitive toutes les formalités de publication def le parquet n'a pas opté procédé à son arrestation parce qu'on lui tendait une perche pour se constituer prisonnier c'est pourquoi on ne l'a pas arrêté pour les faits

lañ koy toppee parce que dinañ ko defaree léegi ci kanam incha